société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di revue de presse dalena jàmm ñu ànd xëy yéenekaay ñu xëyando yéenekaay gi de la Soleil ñu xëy fekk fa docteur Alioune Badara mi nga xam ne mooy directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire nee na ginnaaw Tabaski gi nemmeeku nañ ne coronavirus bi dafa gën yokk ci Sénégal dafa multiplier wu ba neuf ba tey ci journal bi moom docteur bi jiite kuus daan nay wax ne cas yi dafa jóge 1830 dem ba agraf yi nemmeeku na loolee tamit dafa yokk ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan docteur Alioune Badara Ly nee na dafa yokk ndax benn semaine lu toll ci quatre-vingt-dix-neuf mort am na ci lalu hôpitaux yi ba tey ci journal bi daan nay wax ne trente-cinq centres d'oxygène grande puissance yoo xam ne état bu daan na koy commandé yéen kaay gi di Vox Populi nee na en tout cas li am ba desal fagaru moo gën fajo ndax lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar cay agent de yoo xam ne amee nañu coronavirus yéen kaay gi di Les Échos nee na jàngoroy coronavirus jéeka law gi nga xam xam ne moom lay law ci réewum Sénégal ak bëri gi nga xam ne bëri na ko fii loolee moo tax waa Côte d'Ivoire ñoom jël nañu seeni matukaay nee nañu képp koo xam ne da ngay jóge Sénégal ngir nga dugg Côte d'Ivoire il faut ngay wane loo xam ne dafay firndeel na ñàkku nga maanaam ab carnet de vaccination journal bi nee na du Sénégal rek la Côte d'Ivoire wax waaye nag Tunisie tamit ca la bokk ndax woppu jama nga Tunisie yéen kaay gi ñu xëy fekk fa baax Talimin Dias ni wax na ko ne dafa am ay li nga xam ne mooy matériel médical bi loolee Sénégalais yëpp xam nañ ko dafa am am mafia boo xam ne am mafia moo am ci lu jéem ci woppi coronavirus ji te nag li nga xam ne moo am ba des dal dañoo war a wax dëgg nag sénégalais yi sénégalais yi dañu leen a war a wax dëgg ci lii nga xamante ni mooy coronavirus bi ndax nag am na ay leesuuxu la kàddu yu baax Barthélémy Dias la yéenekaay gi di Walf Fadjri bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllu mbindu mi ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la journal bi nee na ñi nga xam ne ñuy waa Pastef ñoom nag tuumal nañ Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau na li nga xam ne mooy certificat de résidence yi yéenekaay gi de Le Quotidien ñu ko son Sonko muy wax ci li nga xam ne mooy mbindu mi ak blocage yi nga xam ne moo ci am wax nañ ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu dem na bindu ji Ousmane Sonko dem na bay neexal ndaw ñi naan leen ngir yàlla dem leen bindu ji son Sonko nee na élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal su dee ne gagné nañu ci Macky Sall gagné gu leer na ñi xelam dootul dem ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko wax na ak ndaw ñi nee na commission yi bu ngeen fa demee ñu bëgg leen a bloqué bloqué leen commission yi ndax jamono ji ñun am nañu ay preuve leer nañ ñi ne téeméer boo jëlee juróom-ñett fukk yi bëggatuñu Macky Sall ci réew mi yéen kaay gi di enquête bu bëri bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di def ana lan moo ko waral woo na si ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum càmbar ak communication ak wàllum càmbar politique yëkkati nañu si seen kàddu ku ci mel ne professeur Moussa Diaw daan nay wax ne Sonko jamono ji dafa bañ a bàyyee terrain bi ki nga xam ne mooy Macky Sall bu dee nag Ibrahima Bakhoum moom nee na njiitul Pastef soo mooy tuulee kàddoom dina dem ba dootul amati solo El Malick Ndiaye bi nga xam ne Pastef la bokk nee na nag Ousmane Sonko jamono ji naataangoo Macky Sall ndax Macky wàllam wéy na yéenekaay gi de la Soleil ak Libération xëy di ñu xibaar naan ñu fédécheur bii nga xam ne mooy Amidou Sidibé te ñu koy tuumal ne moo rey Lobe Ndiaye moom a xaritu Lobe bi tudd Awa Sow ñoom ñaar ñëpp démb mandat nañu leen dépôt maanaam yóbbu nañu leen sa kasu ba taximan bi nga xam ne moom la ñu noon wax ne complice la si dañu ko mujjee def ab contrôle judiciaire yéenekaay gi di Sud Quotidien gi nga xam ne ñoo porté woon plainte ci kanamu FIFA jàpp ne ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yarama dafa dugal loxoom ci li nga xam ne mooy élection fédération sénégalaise bu football kaaf na xotti na plainte boobu nga xam ne collectif aar sunu football jébbaloon na ko ko yéen kaay gi ne na en tout cas lu jëm ci présidence fédération sénégalaise bu football Augustin Senghor ak Madi Touré suspense jusqu'au bout noonu la ko bi xëy bindee source de vérité pour Augustin Senghor ak Madi Touré Madi Touré nag nee na élection yi soo muy tuule daf koy boycotté bu dee nag ñaar fukki club yi bokk ci biir sukkër leen a bàyyi nee na Abdoulaye Seydi Sow jamono nekkaan na président ligue football